jokko njal bàkk bu jub na ami internet Dakar live dal leen jàmm fii ci Dakar live ñu tàmbale kook mbirum Papa Ndiaye journaliste Walf Fadjri moom nag génn na ah, ba indi leeral ginnaaw ba ñu ko dem takk keneen na ko defal fi mba doonee benn ah, si lañ ooloo Papa mu dem moom tamit nee li ma wax fii ci télé bi rek loolu laa wax ñi nga xam ne ñooy attekat yi moom laa wax ki nga xam ne mooy commissaire ah, ginnaaw nag bañ ma yóbbee foofu ca ndugg siin métti mi na na lool lool waaye lu dul yàlla rek neen la ba Papa Ndiaye wax na nag lii ab complot la bu ñu orchestré rek teg ko ci kawam waaye nag nee ah, moom du ci daw saala yaay ndeer ba tax na gis nañ taxawee ak nag li nga xam ne moo nekk doomam boobu di Pape Ndiaye kon nag Pape Ndiaye euh, gën a la góorgóorlu te xam ne àdduna nii la saa su nekk nga dugg ci ay problème ndax doomi aadama motul ñu tëpp waxtaanee li nga xam ne moo nekk tiis bu ci talaata maam Seeraay ma Fall bi suñu borom yóbbu ko mu nekk nag lu tiis a tiis a euh, par ma voix équipe Dakar live yëpp mu ngi koy jaale maam borom borom ndax nag moom liggéeyoon na fi liggéey bu am solo euh, sixième xalif Cheikh Ibrahima Fall boobee nga xam ne euh, bu weeru koor jotoon rek wala màggal ñëpp seen xel day dem ci li nga xam ne mooy ci Baye Fall rawatina euh, Serigne Jëmu Fall mi nga xam ne saa su nekk rek danoon ñaax ndawi kur ko ñu góorgóorlu xam lan moo la xaar ñu daw dem diwaanu Fatick démb nag ab accident bu méttee méttee fa am foofee ci li nga xam ne mooy ci Ndakaaru di borom boobu noonu ak borom camion bañ dalante am na huit morts d'après les informations am vingt blessés waaye tamit am na yeneen blessés yu si rax lu ci am am moo ne information bi da ko doon wax ne euh, jot ne ay euh, mooy six millions francs CFA euh, maanaam la jot a dajale ginnaaw ba ko sénégalais yi dimbalee def liggéey bu am solo waaye ki xam ne mooy cantaakun bi di ki xam ne mooy soxna Aïda nekk soxna ci ki nga xam ne mooy dem si yàlla Serigne mu nekk ab acteur bu mag a mag ah, ci wàllu théâtre ñu ràññee fii ci Sénégal moom nag indi na li nga xam ne moo nekk xalaatam ci mbir moom nga xam ne ah, mooy série circuit noir ginnaaw bi ñu génnee teaser bi ndax dafa bëri woon coow lool fii ci Sénégal ginnaaw yenn ñaawteef yi nga xam ne jotoon na am ci vidéo boobu noonu di ñu koy partager à la une des réseaux sociaux ah, Sanex nee na lii ab yabaatale bëgg a jàpp Sénégal di ko ngawti ngawti te Sénégal daa am ay réalité ate du théâtre ndax ñun yàgg nañ théâtre waaye tamit di conscientiser ñi nga di euh, ko dina ko te saa neex wax na dëgg ndax théâtre Sénégal ñoom liggéey nañ ci liggéey bu am solo ñu waxtaanee ki nga xam ne nag moo nekk animateur bu mag a mag bi di borom ITV Boubacar Diallo moom nag ab laaj bu doxante woon ci digga dem ak Pape euh, ci li ne mooy CNM euh, moom nag wax ngeen ci wax ju am solo boo xam ne euh, ne mooy Boubacar Diallo mu ngi wax sénégalais ne leen lépp loo te xam ne bés dina ñëw dina neex bul ragal bul daw te bul musa ragal li nga xam ne mooy échec ndax suñu borom moom lépp rek jox na ko yow doomi aadama bi sa beneen wàlla ba ba ko Pape Sidi waxee na ko am na ñuy wax na nag da ngaa ki nga xam ne mooy Youssou Ndour mën leen mukk ci àdduna ndax Youssou Ndour sama mag la te démb la tey soogu ñëw ñun ñaar ñoo bokkoon liggéey te bu leen fàtte ne Youssou Ndour muy am li nga xam ne moom la am danoon liggéeyal jàmbur si la ubbi li nga xam ne mooy teleem te nag moom man tax la rek du ma ubbi ITV wala i rajo di ci dimbale ndaw yi damay yem sama bopp kese di yóbbu fu nga xam ne foofay jàlloon te Boubacar Diallo waxam jojo mun nañ ci sel ne Boubacar daa bëgg moom waaje bëgg moom la bëgg te loolay olo Sénégal ndax nag fi moom lu mbar bëgg rek moom la mbëtt bëgg ba tax na nag Boubacar Diallo indi na ay leeral ci diggante ma ki nga xam ne mooy Youssou yaram fii ci Sénégal waaye ca football ba ca beneen wàlla ba foofa ca stade Lat Dior qualification coupe du monde yi li nga xam ne moo nekk Sénégal euh, dóor na Togo 2-0 maanaam ci qualification yi ñooñu Aliou Cissé yi euh, ñoom nag tamit defati nañ li nga xam ne mooy jaloore bu neex a neex euh, ci li nga xam ne mooy football bi mbokk yi nes yi lii leen fi indiloon seen taxaw seetlu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan ki nag mu wàññi dund bi ndax dund bi seer na lool président Macky sénégalais yi nee nañ ngeen wax ci bi dëkk bi lu mu métti métti métti dund bee ko gën a métti dund bi dañoo sonn jërë ngeen jëf. Ah, moom la kay waaw moom la kay ne for nga laal de nu mu demee nii <laughs> di ma ñaawal def weex bu tàll. Ah, gis nga macha allah eh, kii moo fi jaar sëñ Ablaye macha allah. ah macha allah. macha allah sama waaji sama waaj sama waaj sama waaji dama naan eh, doo ma ne ndaxee mbaay. li ma waxoon def nga ko. Mhm. diggoon ma fi oto. Mhm. Eh, dig ma teene jox ma teene oto baas des na. com li ma jox nag moom gën a neex sama mhm. mu muy foddu kàddu bu ne mu tiim ñëpp. c'est dama naan di cinq minutes. xam tam nit looy def si àdduna. ni looy def si àdduna boole si dëggu ak sincère moom dafa dëgg dafa sincère. macha allah defaloo ma kese damaa defal lox na ma dina neex sama xol xam nga temps pass ku xam Ouzin Keita temps pass nan kaa laaloon Ouzin Keita di wër di xeex di xuloo xattal mu fañ ma paye mu fañ ma macha allah sangam ba ma set ba yëkkati oto may ma dama Ouzin Keita fu mu doon dinaa toroxal say noonu ba kenn doo laal taxi ku sama toog yàlla ma yàlla mais mais mais mais yaa ngi koy wax léegi nga ne euh, sëñ Ablaye moo la jox terrain la oto bu pay ma feebaroon du xattal ma liggéey ma maanaam daal macha allah macha allah te sëñ Ablaye mi ko def mu ngi ne toog sëñ Ablaye lu waral lu baax li nga def ko ci kaw Ouzin bon salaamaaleykum maa ngi bi ñi nga xam ne ñoo ñoo di seetaan bon Ouzin dafa nekk koo xam ne ndayam dund amul nday amul baay léegi mu nekk son sonn te dañ ko war a jàppale man gis mbir yi tay fan yi mu aw xaw a ëpp lool waaw coow bi bëri na lii après mu ñëwee si man wax dëgg yàlla ma xam ni kii am na lu ñu ko def ma dindi ko booy te man te man moom moom may reetaan bu ma ko dina pare man ah xaaral ma yëkkat benn oto jox ko. loolu moo tax ma yëkkat jox ko ko. Uh-huh. parce que koo xam ne moom kii dañ ko war a jàppale. Sénégal ñëpp ñoo ko war a def Macky Sall sax président a ñëkkee da ko a jàppale parce que kii moo ni reetaan noonu waaw man ma mun mun maa toog na teere bi ma ko joxoon jox naa ko oto bi moo ngi desoon oto bi na ma ni tey moom dinaa ko faj ba mu wér may yëkkati oto bi jox ko ko incha allah. macha allah si <laughs> defal ko ñaan may ko oto may ko kër loolu yomb ci Sénégal moom. <laughs> incha allah di nga yëngal jamono deful ne nii. moom foofu fu ñu toog kay ëpp na Sénégal laay bëri. ci defal lu la neex. ëpp na. oto bi defal lu la neex. waaw xaama wàcc na. foo jëm. da ngeen la yor rek fu nii moom boo yëg yëgal ci kaw oto. <laughs> yàlla. saa ne xool def weex noir oto bi xool couleur oto bi nga damaa def numaana balaa. arbi euh, def numaana balaa. cëm ëpp na. doolal ma ay français Sénégal ñëpp xam ne oto. bu nu muut xam nga xam nga xam nga tey at mi nañ waxoon. mbokk yi jërë ngeen jëf lii leen fi indiloon seen taxaw seetlu di leen sant di leen gërëm di ñaan jàmm ci réew mi di leen wax ne leen wooy leen di abonné fii ci Dakar Live TV jërë ngeen jëf.